la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam xaatimi nabiin wa imaami mursalin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit yi mbokk yu tedd yi moo xam ñi fi teew wala ñuy seetaan ñi ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay kàddu nuyoo yi ak kàddu ziyaara yi ñi ngi ko jëlee ci collectif ànd taxawu imam Cheikh Ahmed Tidiane ndaw seen kàddu googu nag ñu jëlee ci collectif boobu ñu ngi ci ànd ak mbooleem famille bi nga xam ne ñoo concerné imam Cheikh Ahmed Tidiane ndaw waaye famille boobu yépp seen kàddu ak seen doxalin ñu ngi ko teg ci loxo suñu kilifa gi suñu sëriñ mu di imam alxaaji Mor Jose si nga xam ne moo yore kàddu mboolem famille Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñun ñooñu nekk àndandoo di ay mbokku taalibe di ay mbokku pas-pas di ñoo xamante ne ay soppeem lañu ay xaritam lañ ay wëllëreem lañ séq ak moom daara ji séq moom diine ji moom tarixa bi nattu dal ci kawam dafa rafet ñun ñu àndandoo taxaw wan ko ne ñun ñi ngi sa ginnaaw comme niñ àndee woon ak yow démb ak bërki démb moom Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw nag kenn la koo xamante ne yaakaar naa kenn du ko présenté ci Sénégal xam-xamam kenn umpalewu ko ci réew mi njàngaleem kenn umpalewu ko lim ci liggéey ñépp a ko xam mboolem ñi ñuy tuddee tey oustaz ñu ci bari bi Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw di jàngale boobu ñu ngi jàng wala dalaguñ jàng moom ça fait 30 ans mi ngi def communication ci média bi xam ngeen ko muy jàngale ñépp xam ko ci xam-xam bu rafet xam ko ci yar xam ko ci wax ju tegginu kenn musul yaakaar ne Cheikh Ahmad Tidiane kenn musul ne mas na wax wax bu dérap bien que nag natt du passé waaye lu ñu doon wax ci yar ak xam-xam mi ngi woon ci moom mu jàng lu bari comme ni ko xaj daawda waxe jaar na tiwaawoon jàng li mu war a jàng jàngal ñu bari former ay oustaz former tey ay sëriñ former ay imam forme ñoo xam ne tey ñi ngi nekk ay directeur ci ay école di jàngale yooyu yëpp jaar na fa leeralal ñi nga xam ne xam-xam lañ doon soxla te leeru doon ci moom sama Tijaan Daw def na itte ba loolu lépp leer ci ñoom loolu mu nekkoon nag di ci dox di jàng ak di jàngale moo indi natt bi dal ci koom tey yàlla dafa dogal réew mi am fu mu toll am xew-xew yu fi am du lu ñuy laajte loo xam ma xam ko la muy jàngale doon ci jël ay exemple di ci wax ba tey pour mu leer sama Tidiane Ndao accusé wul benn yoon président monsieur le ministre Ousmane Sonko accusé wul keneen itam te ku jàpp ne tudd na ko accusé ko ci dara dellul ci waxam nga settantal ko bul ko dégloo politiquement mais déglu ko ngir nga déglu ko ngir lillahi wali rasulihi nga segg waxam ndax accusé na ko dafa nettali ay fee mën nañ ne lu tax nga di ko nettali parce que loolu lañ ko téye mais duñ ne ko yaa ko fi sos parce que lan la wax fi góor jigéen tollu tey ci coow li ci réew mi man noonu lay waxee baat bi parce la ko olof di waxe ngeen baal ma yéen nag da ngeen di ak yu mel noonu les français la di olof bon mu ñëw ci wax ko daal na nañ def jàngat daal na monsieur le am na yu la ay nit doon tuumaal tudd diw tuumaaloon na la nàngam ak nàngam waaw loolu daf ko nettali wala moo ko sos man déggoon naa ko yéen dégg ngeen ko keneen déggoon na ko mu ne ko diw tamit wax na la nangam ak nangam ak nangam foo ci toll loolu man déggoon naa ko yéen dégg ngeen ko kon daf ko nettali bi mu ci paree mu ne bi ngeen faloo ki ngeen jëkk recevoir ci mairie bu Casamance wax nañ ne ci ñooñu lay yëngut loolu bu amul it ñun ñëpp ko liirandoo ci journal yi ko déggandoo ci télé mu tourné ne ki njëkk a dalal ci palais bi ci ñooñu la bokk loolu yéen ñi xam ngeen ko ñun xam nañu ko mu ne ki ngeen dalalaat université aussi ci même ñu la bokk mais yii ndax yu mu sos la wala yu fi nekkoon la moom yii la nett li daal ne olof nag nee na buñ la jee jiiñ bëtu guddi dangaa mooy tëndeku xëy di soccoo yeerub kone lu ko moy génn ak lañ naan aha kon mel na ni dafa nett li ay fee yu ñu waxoon posé ay question teg ko ci table bi yàlla dogal ñu xëy arrêté ko liñ koy toppe mooy da nga offensé premier ministre parce que wax yim net li wuru ko woon net loolu lañ ko téye ba tey ñu téye ko def nañ ko euh, garde bi après mujj nañ ko yóbbu euh, mu dem nekk détention léegi ñu ngi wax ne lundi lañ ko war a euh, atte incha allah huit heures ñu ci profité di woo képp koo xam ne yaa ngi taxawal lislaam képp koo xam ne yaa ngi taxawal dëgg képp koo xam ne yërmande ngi dox ci yow képp koo xam ne jàmm concerné na la ñu ngi laa woo ci projet boobu nga ñëw taxaw gungeel ni suñu mbokk daara suñu mbokk pas-pas suñu am di jàmm loolu moo tax ñu ñëw daje foofu euh, ñu bëgg ñun ngeen daje fa ànd ceeg ñun lii itam bokk na ci li nga xam ne moo taxoon tey ñu woote fii pour leeralal nit ñi ne da ngay dégg ñu naan wax ji mu wax wax ji mu wax wax ji ak nu mu mën a tollu wax yi jaamur la wax li ñu war a wax kay mooy ndax war nga koo wala waroo koo kon moom sosalu ko créé wul teg fi mais dafa nett li luñ fi waxoon loolu rek moo ko yóbbee li ko dal ñi ngi wax nag monsieur la président monsieur Diomaye fay ak monsieur le ministre Ousmane Sonko ñoom ñaar la ñuy waxal ñooy nday réew mi tey te ju bokk na ci liñ doon xeex ñoom bi nuy campagne mooy lan dañoo war a bàyyi ci réew mi làq doom duma doom doon nañ ko bañ doon nañ bañ itam bi ñuy laaj réew mi ne lan réew moo xam ne ku wax ñu jàpp tëj boo sëqatee sax ñu tëj la nan ko bàyyi ñoom ñoo doon wax ne réew moo xam ne kenn amul droit wax li nga xalaat ñoom buñ commencé seen nguur ci loolu parce que bari na ñu leen jox nguur te loolu lañ ànd ak ñoom parce que dañ naan président bi fi nekkoon duñ wax liggéeyul mais amul woon yërmaande day jàpp di tëj ñoom loolu booy na seen i nopp kon ñu ngi leen di ñaan buñ ko débité seen nguur ñu bàyyi sama tijaan ndaw mu ñibbisi dellu ci jumaam dellu ci daaraam continuer jàngale former waa nit ñi mu doon former àndaat ak nitam loolu lañ leen di ñaan comme ñoom ci seen loxo la nekk te xam na ni ñoom ñoo jiite réew mi loolu ñu ngi leen koy wax bi ci des dinaa ko wax déglu nañu ki ñuy wax euh, imam Dramé même buñ jàppee euh, imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao war na jàpp imam Dramé parce que imam Dramé mu gën a garaaw foofu lu mu wax li Cheikh Ahmed Tidiane Ndao wax xanaa kay dañ naan kan la ko Cheikh Ahmed ndaw Ndao jëmale ñu ne ministre la ëpp na ko ay grade mais yow doo ministre mais moom dafa nett li yun fi waxoon mais imam Dramé dafa sos teg moom moo wax ne nett li fan la jaar ak première soxnaam déglu ngeen ko toog ci télé nett li fu imam Sama Tidiane Ndao jaar ak première soxnaam ba ñàkk ko ku wax fi jaar ba yor soxnaam tey jooju wax ju ñaaw jooju wax ju bon nga teg ko ci nit ci am pénc te ne yow imam ngay wuyoo mu wëlbatiku wax ay xale yu jigéen yu nekk kastoor fi mu jaar ak ñoom ne ñëw nañ moom réclamé ko moom ne buñ ko yóbboo tey ci yoon war naa wax xale yooyu ñan la ak kan la woon ak li mu doon wax ban preuve la ci am parce que moom dafa sos de te kii dafa nettali kon moom war na bu dee dañoo autosaisir war nañ autosaisir ci moom ne ko kaay li nga waxal góor gi foo ko jëlee kon buñ lay woowee imaam am na jikko yu war a nekk ci yow mais jikko yu imaam du xam-xam danaa dégg muy tiitaroo muqaddam laa tiwaawoon laa yoroo eh lan mooy màkka lan mooy médina lan mooy sëtu yónnent bi jikko la wa innaka la ala xuluqin azim bu critères yi amul doo kenn xam-xam jikkoo ko gën bala ko koo tiitaroo utal jikko dëkk Tiwaawoon ut jikkoo ko gën maam Maodo nee na boo fi juddoo yaroo fi màggee fi sant si te yoroo liñ soxla dëkkoo Tiwaawoon waaye boo yoree li lislaam soxla ci jikko yu rafet bokk nga Tiwaawoon maa ngi koy delloo ne ko na nafar suuratul Hujuraat fexe koo mokkal mu jël critères yi fexe koo def ci boppam sa bàyyi li muy def ma yóbbante leen ci moom yéen ñi koy dala laajal leen ma ko ban jumaa lay jiit ci ndakaaru nekk fa imaamu ratib maa koy ñaan li laay wari rasul ku ko dalalati nee ko nee nañ yow ban imaam ban juma nga nekk imaamu ratib ci ndakaaru tax taxawal ci question bi mu ne la fii laa ko doon wala doonuma ko fii bi ci des nee ko muqaddami léegi moo këyitu suukarayam dañ koy bind ci këyit rek tàppe ko ne la am yow muqaddam nga doo kenn muqaddam critère la woon wa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin wa zalika alim min ash-shaytaani rajim bismillahi rahmani والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع آله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى جميع آله وأصحابه أجمعين mbokk jullit yi mbokk Sénégal seen mbokk imaam sëriñ alxaaji Mor Diosi si moo leen di nuyu di leen ziar ci turu diine ji waaye di leen ziar ci turu imaam Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw tabarkàlla nu bi ñu ngi koy teg ci loxo ki fi wutu imam muy imam kabi ak mboolem waa jàkka ji mu wutu fi imam ratib fa tabarakallaahu bëggoon naa ñëw waaye maa ne ko jéggal nañu la ndax mag ñi ñoom dañu bëgg ñu toog rek di ñu ñaanal fa tabarakallaahu doonte seen xol tooy na seen xol sori na waaye ñu ni ko toogal kon ñu ngi nuyu délégué de quartier di duyu mboolem bokk jullit yi fi neew nekk yëpp di ñaan yàlla góor gi tëdd ci suñu ginnaaw imaam Babacar Touré yal na yàlla yeesal njëggalam yal na yàlla yokk leeram bi jaaye rasulillah waaye itam di nuyu suñu kilifa diine yi suñu baay sëriñ Babacar Sy Mansour yal na yàlla yokk fanam yokk leeram fa tabarakallahu di ko ñaan mu jàllal leen ñu ko ci mboolem kilifa diine yi ci réew mi yëpp gannaaw ba mu tegee ci loxo suñu wajur sëriñ Maodo si Dabbaax ak sëriñ Babacar si Abdul Aziz ak mboolem famille tabarkàlla Seydi Xaaji Malik waaye di leen jox nuyoo Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw démb lañ dem seeti ko man ak soxnaam nday ab satu jàllo fa tabaarakallaahu ñu fekk ko ci xaal boo xam ne xaal bu yéeme la te mooy xaal bu rafet ma nga sol xaftaan bu set tabaarakalla watu ba macha allah moom bokkul ak man tabarkàlla yor téeréem alquran di jàng waaye itam commencé na sax di ko jàngale fa tabarakallahu euh, ma nga nekk ak ñoom ci jàmm ma ngi ci jàmm macha allah euh, mu nekk loo xam ne fa tabarakallahu sant yàlla la ndax bari na koo xam ne defe nga ne tëj nga ko fekk da nga ko may jot pour mu mën a wéet ak boroomam a wéet ak euh, tabarkàlla boppam loolu lu am solo la moo tax saalitul ba léegi te yaakaar naa du mos a saalit am na benn boroom xam-xam bu mos a saalit buñ tëj mu ne xaraj na min addunia wa nahnu min ahliha waaw hmm. ah, ida jaana sajjaanu yowman li xaajatin naqulu jaa hada min addunia waaw hmm. ah, waa ji dafa saalit ñu ne ko danga saalit mu ne dañ maa dugal kaso ma xam ne génn na àdduna te wax dëgg yàlla demaguma àllaaxira ñu ne ko lu lan mooy sa mu ne saa buñ gisee ku jege ci biti wala ab prisonnier wala gardien dañ naan kee da àdduna la jóge kon kooku yëg na ne kaso metti na ko ah, ah, ah. waaye Cheikh Ahmad Tidiane mu ngi sant yàlla mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm tabaarakàlla ñun tamit encouragé nañ ko wax ko li gi nekkee lépp fa tabaarakallaahu mu kontaan ci lool nag tabaarakàlla mbokkam yëpp itam noonu lañu ñu ci taxawaayu nit ñëpp ak seen yitte su ko defee di rafetlu tabaarakàlla kàddu yi fi jib imaam Daouda Camara fa tabarakallahu di ko ñaanal yàlla tawfiq ak taysir imaam Pape Malick Sy fa tabarakallahu ñoom itam yal na yàlla jàppale leen ñu wutu fi nag collectif boobu ñuy wax ànd taxawu Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw waaye wutu fi itam xadra Seydil Haaji Malick yëpp rawatina daara maam Maodo muy groupe whatsapp boo xam ne képp kuy borom xam-xam wala nga bëgg a dund ci xadara bi yaa nga fa di taataan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jotal seen kàddu su ko defee ñu xam ne rek fa tabarakallahu man yarham yurham loolu lañ tuddee waxtaan bi kuy yërëm yàlla dina la yërëm loolu li muy wane mooy moo man laa yarham laa yurham ku dul yërëm kenn du la yërëm yàlla nee na wa rahmati wasiat kulla shay'in fa sa aktubuha lilladina yattaquuna nee na sama yërmande ëpp na lu ne waaye nag ñi ma ragal di bàyyi xel may kan ak samay mbir ñooñu ñoo yeeyoo sama yërmande man yàlla loolu moo tax xare xare Uhud la muy métti métti yonent bi dem mën a bay ñaxtu yaan yàlla nekkoon ne ko laysa laka minal amri shay'un sama digganteeg samay jaam sa yoon nekku ci mm-hmm. waaw comme sekam yàlla la wax loolu nag mas sama keneen koo xamante ne nii jaamu yàlla nga su ko defee kon ñu xam ne man yur yurham ku yërëm yàlla dina la yërëm wa innama yurhamu rahmanu man rahima loolu la boroom xam-xam yi wax yàlla boroom yërëmande yi nee na képp kuy yërëmaate dinaa la yërëm su ko defee kon ñu xam ne rek yërmande am na solo lool lool lool rawatina bu jamono wëlbate ko ndax ku nekk bés a ngi ñëw di nga ko yelloo ku nekk itam bëgg nga ko ñu la koy jàppale su ko defee kon ñu xam ne loolu lu jar a bàyyi xel la kàddu yi nag maa ngi koy jëmee ci procureur de la république muy Abdou Karim Diop ba ma koy gis xaw ma woon ne sax dossier bi ci loo loxoom la nekk waaye maa ngi koy fàttali rek lañuy fa ñu dajee maag moom ñu ngi dajee ko ci benn entraînement entraînement boo xam ne maanaam benn mbokk mu gaañu boo xam ne reer na naan ataayaam ba une heure du matin mu tëdd fajar jot ñu yeewu fekk fàttam dëj boobu ci lañ dajee maam moom ci lañu xamante kon yaakaar naa loolu rek doy na bàyyi xel sa boroom li ci toppit mooy fa tabaarakallaahu euh, président de la république njaboote ñëpp ñu xam ne rek moom ci boppam tabaarakalla moo njaboote ñëpp na bàyyi xel ñëpp suñu wóllëre ay jege ñaalem lañu am ci ay jege ñaalem ñu ko jege mën naa wax sax ñu mu bokkal ndey ak samay wóllëre lañu kon bu lii amee nañu bàyyi xel bu baax a baax xam ne senegal ñëpp benn lañu bu dee Ousmane Sonko Sénégal mag ñi dañ ko wutal ay garde-fou yoo xam ne sax du diine ndax euh, Sénégal li fi nekk du diine ko fi indi mais taxawaayu mag ñu baax ñoo ko fi indi loolu moo tax kal am solo bu dee joola bu dee séeréer bu dee ndawkunda bu dee ku mën a doon am na loo seq ak sa morom kon nañu bàyyi xel yooyu xam ne Sénégal jàmm rek moo fi xaj bu dul lu dul jàmm xaju fi su ko defee ñu bàyyi xel bu baax xam ne senegal dëkk la boo xam ne lu fi waaye jéem lu dul jàmm yaa ngi nax sa bopp su ko defee kon ñu wax ne euh, li nga xam ne moo xew du dara lu dul lu yàlla nattoo jaam nattu jaam la te nattu ku ne mën na laa dal Cheikh Ahmad Tidiane nag yàlla ko jé baaxee li mu ko baaxee yàlla ko seddee li mu ko seddee ci wàllu jikko ci wàllu xam-xam mosul blessé kenn gëj naa blessé nit lu tax muy blessé am na lu tax te mooy réaction yi am ci dëkk bi te mooy ñàkk wormaal kilifa yi ñàkk a wormaal njaboot gi moo tax mbiram changé waaye nekkul woon jikkoom ku mën a wodd wax la ku wó ku mën a yërëm wax la kon bu li amee rek dañuy wax ne incha allahu altine la ñu war a dajee incha allahu palais de la palais de la justice incha allahu huit heures du matin ku yàlla dogal nga man faa yegg nga yegg fa incha allahu yàlla dana àtte waaye balaa ñu caa àgg ñoom ñi nga xam ne ñoo yilif mbir mi ñu xam ne yàlla mbir mi yëpp ci loxoom la nekk nañu bàyyi xel suñu boroom bàyyi xel ñoom fi ñu jaar ba agsi fii nii nit am na leçon yoo xam ne bu la ko jaar yàlla jaaralee war ngaa bàyyi xel bu baax nattu pour nit te la natt du pour natte kon fa tabaarakallaahu ñu ngi gërëm ñi fi teew ñëpp mboolem koo xam ne participer nga ci ñu ngi lay gërëm di leen ñaanal yàlla tawfiq ak taysir di ñaanal yàlla presse bi yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla taxawu leen ndax toxal dëgg yóbbu dëgg fi nga ko war a yóbbu dafa am solo kon bu boobaa euh, ñu wax ne rek président de la république yàgg ñii la njaboote boroom xam-xam ba dafa wax ne bi bazlin wa xilmin saada fi qawmihi lfata wa kawnuka iyaahu alayka yasirun nee ci yulli di joxe ak lewet ca la waaj nekkee sàng ci biir réewam kon ku mënta joxe lewetuloo mënoo yulif kenn kon nañu bàyyi xel bu baax loolu bi ci toppit mooy axsin ila nnaasi tastaabid qulubahumu fala taalama staabada insaanu ixsaanu nee boo bëggee yilif nit ñi rafetalal jëm ci ñoom rafetalal jëm ci ñoom ndax képp koo xamante ne yaa ngi rafetal jëm ci ñoom ci nit ñi incha allah nit ñi tabaarkàlla sa njaboot la ñuy doon kon buñ bëggee réew mi am jàmm nañu rafetal buñ bëggee réew mi am jàmm nañu jàppale doomu aadama yi su loolu amee rek incha allahu réew mi dina jëm kanam te ñu jéggalu ñun ñëpp yàlla jéggalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu mag ñu baax ñi nga xam ne fott nañ seen worma xotti leen seen der te buñ ko tuubul mën na mën na am du jug Sénégal loolu nag xale yi laa ko njëkk a jëmee ñu bàyyi xel bu baax dégg nga laa taa'ata rida al maxluqina bi suxtil xaaliqi waay waay bu leen topp ngërëmu doomu aadama wala ngërëmu ku yàlla bind ci meru yàlla lu yàlla bind yàlla moo santaane ne bu kenn gis dëgg di ko noppiwaale dégg nga képp koo xamante ne gis nga dëgg noppiwaale ko ëllëg di nga ko digaale ak sa borom ndax yàlla nee na loolu laa rëbbee waa banu israil moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la ta'murunna bil tan wa la tanhawunna anil munkari aw la yusallitanna allahu alaykum aduwakum fa yad'u xiyaarukum fala yus fala yustajaabu lakum nee na giñ naa ne di ngeen digle lu baax giñ naa ne di ngeen tere lu bon wala yàlla dina leen teg mbugal moo xam ne natt yoo xam ne ak ci jóge ci seeni noon seen kilifa diine yi di ñaan te yàlla du ko sottal du ko nangu jamono boobu ci la ñu toll yonent bi sallallahu alayhi wasallam di encouragé kilifa diine yi di encouragé ñi nga xam ne ñooy wax nañuy wax li nga xamante ni moo xew Cheikh Ahmad Tidiane nag dafa wattandekuloo dafa avertir moo tax euh, mu waxee ni mu waxee te yàlla loolu la wax yàlla daf ne wattaqullaha wa yuhadhirukumullahu nafsa ragal leen ma maa ngi leen di moytuloo sama bopp maa ngi leen di avertir jamono bii nag euh, jamono la boo xam ne ku nekk sa xel rëy na ku nekk sa xam-xam bari na ba ku nekk sa morom doyu la waaye li wér te wóor mooy nañu def attention bañ a topp lu neex suñu bakkan wala bañ a topp diwa ma neex ba nga def ci réew mi loo xamante ne ni naka sa du noonu la rawatina tilimal deru euh, goru deru deru jaamu yàlla yi loolu dañuy wax ne luxumul awliya yi summun naaqi deru waliyu yi tooke la buy alage poisson la day alage kon nañu moytu bu baax a baax a baax di ñaax ñëpp ñi nga xam ne ñooy press bi ak ñi nga xam ne ñoo leen di déglu ñu xam ne ñett yi nga xamante ne wax nañ ko ci presse nañ ko bàyyi xel te mooy salaamatul qasdi iraadatu tahqiq wal ifaada lil xalq waaw looy def lu nekk nañ ci am intation bu bu jub nañ ci am yéene bu rafet boo xamante ne ni du du am benn dégg nga parparloo salaamatul qasdi bi ci topp mooy wutal dëgg iraadatu tahqiq waaw lu luñ la wax lu mën a doon na ko vérifier ba xam lan la nga jël ko indi ko loolu bu amee moo gën toog di xaar réseaux sociaux yi moo gën toog di xaar actualité moo gën itam toog bi jënd ay information nañ ci bàyyi xel iraadatu taxqiq mooy wut dëgg bi ci topp mooy al ifaada lil xaq jëriñ mbindeef yi waaw ñetti point yooyu dafa baax ci presse baax ci borom xam-xam looy def na na ci am yéene bu set looy def itam na nga ci wut dëgg waaye looy def itam na ko def ngir jëriñ askan wi tabaarkaal Sénégal ñu bëri ñu problème ci wàllu information Sëriñ Babacar Si nee na ba ñu waxee wala qad wasal na lahumul qawl jotal nañ information bi mu ne ndax information bi jar a jotal la ñu jotal kon loolu lu jar a bàyyi xel la su ko defee ñu xam ne rek àdduna day dox waaye ku jeexal dem te ku dem itam la nga fay yóbbu moom ngay moom ngay moom ngay récolter moom ngay jëriñoo fa tabaarakallaahu ñu sant yàlla bu baax jéemale yemale kàddu yi fii xanaa la ma fekk démb ci buntu prévision ñu ne Nelson Mandela moo ko fa bind te mooy nee na euh, je ne jamais je ne ngeen baal ma ci français yi je ne jamais perdre soit euh, je gagne soit je prends su ma juumul laa axsuru abadan ah, imma an afuz aw ataallam du ma perte mukk benn ma gañe wala ma jàng jële ci xam-xam kon moo tax ma ne ko kaso du palaasu la ñenn ñi waaye am na ñoo xam ne seen place kaso lay matee yontu yàlla Yuusuf loolu tax bu mu amee perturbation dafa taamu kaso ko mu ne rabbi sijnu ahabu ilayya mimma na ni yàlla kaso moo ma gënal ñoom liñ may woo la naka noonu sijnu mag du makaanu sajn du palaasu jaaxle du palaasu kii mais palaasu nas la palaasu jàng xam-xam la bari na borom xam-xam yoo xam ne ci biir kaso gi lañ amee xam-xam bi ñu am ñu am yaakaar naa Ibadeer Thiam ci la bokk am na yeneen borom xam yoo xam ne ci biir kaso la ñu nasee la ñu nasee am na ñoo xam ne sax bi ñuy gañ élection li ñu nas yëpp ci biir kaso gi lañ ko nasee mm. door a génn kon kaso du palaasu n'importe kii ku fa yàlla yóbbu rek am na lu mu namm ci yow Cheikh ci Tidiane nag yal na ko yàlla taxawu yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla génne ci jàmm indi ko ci njabootam ñi may waxal nag mooy ñu jiite réew mi nañu xam ne li ma leen di wax du caaga ne pour neexal leen waaye dama leen di wax pour loo xam ne moo leen di jëriñ mooy jëriñ askan wi mooy indi stabilité ci réew mi te ñun loolu rek ci la ñuy waxtaan toujours ci stabilité la ñuy wax toujours ci social la ñuy wax xataa ba ci léegi maa ngi encouragé ñëpp ñu dem bayi ku mën a bayi demal bayi dogal na nga xam situation àdduna bi fi mu toll xam li nga xamante ne économie mondiale foo la toll àdduna bi li ñu am ci bor moo ëpp doole tabaarkàlla li ñu am ci koom-koom àdduna bi fi mu toll nii ku nekk yaa ngi bëgg a dundal sa njaboot kon Sénégal bu ñu bayul fa tabaarakallaahu boo moytuwul du ñu am li ñu gënal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla yal nañu yàlla mayaat occasion yu mel nii ñuy leeral julli di seen dund di conseiller doomu aadama yi ndax yàlla bu ëllëgee ñu am dund gu sell waaye ku sànq sa boroom xam-xam soo moytuwul sànq nga sa réew te Cheikh ma Tidiane ku ko sànq bool bokk nga ci ñu sànq sa réew yal na ko yàlla sàmm te aar ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw la science élevée la wax ñu jàng fatiha salaatu ala nabi ayatul kursi yi fàlla fekk naa si yal na yàlla taxawu leen yéen ñëpp.